am na ñax bu bëri bu fi newoon waaye tey bi ñëwee gis nañ ci ab diir bu gàtt engagement bi nga xam ni taalibe yi am nañ ko seen i pas ak def ko seeni i yitte fexe ba nga xam ni mm, ci ab diir bu gàtt boo xoolee fi mu nekk ni Champ de Courses di nga di gis ni fépp set na te bay nañ ko ba pare ratoon nañ ko bale nañ ko day wane rek engagement bi nga xam ne am nañ ko seen yéene bi nga xam ne am nañ ko ak seen pas-pas ak li nga xam ni fas nañ yéene takku ko ngir waajal bés bu màgg boobu nga xam ni moom lañ jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lu mel noonu nag at mu ne buy am ñun dañuy am mbégte ñëw teew ci si opération bi lancement bi ñëw taxaw fi ànd ko ak euh, taalibe yi waaye ànd ko tamit ak responsable eh, di saytondoo aussi tamit événement bi lépp li nga xam ni daf ci nar a indi sooxe ñu teel ci taxaw moo tax dañuy mobiliser ñi nga xam ni mooy service yi yi yëngatu ci wàllu ndox yu mel ni SDE pour ñu indi fi point d'eau ubbi ko nit ñi mën ci liggéey kooku benn point d'eau la waaye ni ñuy gën a dem ci gàmmu bi ñu ubbi yeneen point d'eau yi e, ci wàllu assainissement yi prévoir nañu tamit ay opération pour ay camions de vidange après bu ñëwee ci comité d'organisation ñu xool nu ñu koy doxa doxalee ak ci wàllu courant bi xam nga fii danañ ci dugal poto yu bëri fexe ba béréb bi leer et dana amit ay équipe yoo xam ni ci daayir bi la ñu bokk ñoom dèjà dañuy teel a campé bi commencé di taxawal tente yi ñu war a ànd ak ñoom tamit ci wàllu sécurité sapeur pompier yi gis ngeen leen fi UCG euh, tamit unité coordination et de gestion nga xam ni mi ngi yëngatu ci wàllu mbalit bi ñoom it gis ngeen leen ñu taxaw fi ah am na nag lu am solo loo wax sànq maanaam ñu def coordination ba nga xam ni et journée de nettoiement bi ni ñu koy defalee ci gàmmu gi ak kii ñu koy wéyal ma lay fàttali rek nii booy seet ci quartier Tivaouane am na ay organisation jeunes ak femmes yoo xam ni ku ci ne da jàpp benn bés ci sa quartier ngeen koy bale di ko nettoyer donc loolu lu fi am la dañ laaj na nag ñu gën ko dëgëral nest ba nga xam ni euh, au lieu muy ne benn fan sax dana dem ba xëy na ba ëpp ko bëgg ñu gën ko yaatal tamit ci biir dëkk bi waaye ñuy wax ni loolu yëpp mooy importance su set bi ak setal bi rek dana am tamit ay pompe yoo xam ni service d'hygiène tax daanaka tàmbale ni di ko def waaw engagement yi ñu jëloon nag ci réunion yi njëkk yi muy CDD bi ak jël nañ ko ci CRD bi ci région Thiès waaye dem na bokk nañ ci benn réunion nationale def nañ ko boo xam ni ministre woon ak directeurs yi chef de service ñu jël fa engagement engagement yooyu tamit ñi ngi koy saytu di xool nan lañ koy taxawal am na engagement yoo xam ni dana laaj xëy na ab diir ñu def ko mais am na yoo xam dañuy continuer di ko topp ba keroog incha allah ñuy egg ci kamu am na ñuy euh, yaakaar n'est-ce pas ci ndimbalu suñu borom ni suñ ko toppee noonu et di ci lëkkaloo di ci liggéey ak comité d'organisation bi ñu ko seqal suñu borom mën nañ ci defal lu loo xam dana kawe suñu jox incha allah matériel bi unité de coordination et de programme des déchets moom moo koy indi ñoom ñu ngi newoon ci ministère de l' aménagement du territoire la gouvernance locale de l' aménagement léegi ñu ngi dépendre ci ministère de l' urbanisme du logement et de l' indi matériel bi matériel bi nag lim bi dafay takku te tam dafa am ay béréb yu bëri yoo xam ni fa lañ koy yóbbu waaw dana jafe nga tëb rek wax lim bi nu mu toll nii waaw. bii dafa am seede bu may def rek ndax alquran dani ci xam lu rafet nëpp yàlla nee na amul ku ko ëpp bàkkaar wolof ma wax ni mag mën naa rupp laalo te du mokk loolu ay waxi wolof la waaye ma seedeel mbokk yëpp di ko seedeel ñu bokk ci daayira bi ñu Tiwaawan préfet bu nekk jaar na macha allah ñu fi jaar ñëpp nag collaboration bu rafet lañu àndoon ak ñoom mais El Hadji Makan mi def ci def taxawaay bu exceptionnel mooy dafay ànd ak ñun liggéey bi ci xalaat ci jëf ci teew bu ñu jubee gàmmul su jotee courrier yi service bu nekk ñun bala ñu fay dem di leen wax lii leen soxla dinañ fekk mu jox leen lettre boobu ba pare jox leen ay instruction mais lii mu def nii tey bi mu ñëwee ba léegi loolu lay def ci bis bi day ñëw fii ànd ak nun liggéey bi su waxee mu ni dama waroon a samp tib war a ko ñëpp loolu macha allah xalaatu taalibe la mu ànd ak administrateur ren yéen a ngi gis ci champ de ni gis ngeen fi ñeenti gloobu toile loolu ci xalaatam la jóge mu ànd ci ak waa ONAS ak waa mairie su ngeen seetloo sax bi mu duggee ci champ de course am na fi lu war a mat 45 minutes man ak moom ñu ànd ngeen seetlu nuy seet bloc yi parce que bloc yooyu dañ ko fee tabax ngir ñi fiy ñëw mais délai biñ ko commencé ak fi muy war a yeggee fii gàmmu gi mën naa am ñeent yëpp du mën a fonctionner waaye ci yitteem moom mu woo ñi ko amee ñu dem xool ko ba ñaari bloc yi ñu mën koo defar ba nit ñi mën koo utiliser te mu ngi xalaat tam ñu dolli waat ci leneen te gor ku ko defal teraanga daf koy wax moo tax ñun ci ni nu Serigne safaa yare dañuy dox ci sunu moyens yi bopp waaye képp ku nu jàppale loo nu jàppalee bu tolloo nag misqaala zarratin lu tolloog atom dinañ ko seede may seede ni macha allah préfet fa tabarakallahu ni muy collaborer ak ñun daf koo def ak yéene kon dox na rôlu administration waaye dox na rôlu taalibeem dox na rôlu jullitam yal na ko yàlla fay ak ñi nga xam nag ni ñoom la fi représenté parce que lu mu def eh, mu ngi ko delloo ci instruction yi nga xamee ni nii la ko ministre am di jox instruction yi président di joxe wante léeg-léeg nga gis ku ñu jox instruction ba pare te doo ko doxale na nga ko war a doxale mu dellu ci baat bi ma waxoon ni mag mën naa rukk laalo te du moom ñun nag ku ñu defar lu baax dinañ ko wax waaye ku ñu def safaan itam dinañ jàpp suñu njàmbur ci yow kon may seede rek mbokk yi di ko ñaanal yàlla di ñaanal ñi mu fi représenté ak mbokk yëpp lu ci waay liggéey ci yiw yal na la ci yàlla fay yiw waaye yàlla fay ci ki nga xam nag ni ci moom la yëf yi jóge yonent bi salaa moo wax di man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati nee na ku def benn sunna bu rafet ku la ca royati def ko nee ñu bindal la ci yiw bindal ko yiw ba yawmal qiyama waaye ku def safaan itam noonu kon Serigne Moustapha bi nga xam ni moo ñu may initiative jël initiative yi ñu di ko def yal na ko yàlla fay yiw fay jullit yiw wa tawilil umra li kulli wahidi صحح الجسم لكل وافد وكسر الرزق وأعط البركة لكل من يختار منا الحركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين والسلام عليكم ورحمة الله